wa ala alihi wa saxaabatihi alxurri almayaamin wa ala xayri xadimihi di alxabli almatin wa ala man iqtafa athaarahum ila yawmi ddin bokk julli di assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu gannaaw bi nu santee sunu borom subhaanahu wa taala julli ci Mustafa sallallahu alayhi wa sallam tey jaajëfal al Cheikhul Xadim noo ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen ndokkeel di ñaan sëriñ Tuubaa si am Mahamadul Muntaqa sun boom dolli ko fee yàggal dolli ko ak wér ba lim yéene liggéey sëriñ Tuubaa lépp mu àggale ko ak sagom te lépp naanu ko ak moom di ko ñaanal njaboot sëriñ Tuubaa gépp waaye di ko ñaanal sun boppi nun taalibe sëriñ Tuubaa yépp des na bi fii ci seen télévision Lamp Fall ngir eh, dikkee seen seen émission fardu ayn bi nga xam ne baaxoo nañ leen ko amalal ci koor gi bis bu nekk ci waxtu yi eh, di ndokkeel ñépp nag ci fan yu mujj yi nu nekk xam ngeen tey laa juma di ñaar fukki fan ak juróom-ñett eh, ci weeru ramadan 1441 hijriya tey nag ñu bëgg a ponk boo xam ne boo am solo la ci buñ tollee fii muy zakatul fitre zakatul fitre mooy mu warum koor muy lu lislaam yoonal ci bépp jullit bu woor ba koor gi jeex mu génne ko e, ci àllam jox ko ñu ko war a jox loolu dana leer ci kanam incha allah kon zakatul fitre wenn xeet la ci xeeti asaka yi nga xam ne yu wuute yi nga xam ne yàlla da ko waral subhanahu wa taala ci képp kuy ab julit mu di ko joxe lu jiitu jullik iid gi danañ ko tuddee it dañ ko tuddee zakatul fitr mooy li ma wax léegi ngir ne ci la eh, baatu al fitr mooy dog ndax mooy ci la julli ñuy dog seen koor moo di jël baatu fitre bi tekki dog lëkkale ko muy zakaatul fitra dañ ko tuddee zakaatul daan mooy asakay yaram yi asaka wax na gér yaram yi koy génneel lu tax mu tuddee ko asaka yaram mooy dafay sàmm borom dafay sàmm borom ki nga xam ne da ko génne waaye di laabal itam bakkanam di ko setal ci lépp luy ay gàkk-gàkk zakat fitri nag dafa wuteeg yeneen asaka yi ndax bu dee yenn asaka yi mooy dañ koy génne ca alal ja waaw dañ koo farataal dañ koo farataal ci alal ji dañ naan ko am nangam ci alal war na ca waaye bu dee sakat fitra eh, war lañ ko ci alal waaye ci jëmm ji lañ ko lañ ko mooy ci jëmm bi ci boppam kon bu dee asaka ya nga xamoon ci alal ji lañ koy waral bu dee asaka ji nag ci jëmm ji lañ ko waral bu dee kile moom ko woomal lañ koy aj ca ca ca alalam bu dee lii nag moom kooma la koomalut ku ñàkk ko am ñëpp lañ ko waral kon xat furidat ala muslimi nafsihi wa laysa mali tegtalub yoonal giñ ko yoonal eh, mooy ndeg eh, dafa rot maanaam mashru'iyatu adaa zakaati fitr dafa dafa rot ci xadis yu bare bare bare ba yëpp yëpp yu wér la yonent bi sallallahu alayhi farataal ko eh, moom sakatu fitri ci mboolem ab jullit daw asakaal ndax lan ndax mu nekk luy laabal aji woor ji ci xeeti njuumteeg caaxaan yu def ci koor gi eh, ngir mën ko ngir mën ko faxas waaye nekkit aw ñam di xéewal ci miskin yi tax képp ku ko joxe lu jiitu jullik iid gi mu nekk asaka ju ñu nangu koo joxe gannaaw julli gi nag mu nekk ab sarax ci sarax yi xadis boobu ibnu abbas moo ko solo wane farada rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam zakat al fitr tuhratan lis saimi min al laghwi wa rafath wa tu'matan lil masakin man addaaha qabla salaati fa hiya zakatun maqbula wa man addaaha ba'da salaati fa hiya sadaqatu min as-sadaqat kon nga dégg ci ne kon fekkee ne joxe na ko rek lu jiitu julli iid gi kon joxe na muru koor waaye su fekkee gannaaw julli gi nag ab sarax lañ ko jàppe léegi waaye nekkatul murum koor léegi yoolub sarax la ci am waaye du ci am koor kon loolu doon lu lu lu mat a lu ci mat a bàyyi xel bu dee xikma bi xikma bi tax ñu ñuy yoonal zakatul fitr murum kor ay mbir la ba ci njëkk mooy tazkiyatu nufuusi wal abdaan mooy sellal bakkan yi ak yaram yi ndax asaka la joo xam ne yàlla da ko waral ci mboolem yaram yi ak bakkan yi ndax mu mën leeral muy feeñal bokk muy feeñal cantuk jaam bi jaam bi di ab julit cant gi muy sant yàlla azza wa jalla ci xéewali dund gi mu ko jox muy xéewal yoo xam ne mënee su koo takk mënee su koo lim wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha la alxuraan wax su ngeen doon jéem lim leen yàlla defal ci xeel doon ko man bukk doon ko doon mën a matale te xéewalug wér wér gi nga wér ba mën a woor ak fekk gi nga fekk kooru ren loolu de xéewal goo xam ne su ko fay waxuma la ak yéen xéewal yi ca des kon wér ak yaramu mucc ba mën a wor loolu de xéewal gu rëy rëy la nga am na ñu ko mënut kon boobu mooy bi njëkk ba ko ñaareel mooy nashrul farxati bayna jamiil muslimin yowma idil fitre wa taaminul musharakati min ajmali cheyin fi ramadan may feeñal mbégte guñ mën a feeñal mbégte ci diggante jullit yi ci bisu korite gi ak nag bokkoo matale ak bokkoo ci bokk ci ngeen mbir yi gën a rafet ci ramadan te mooy yëg gi nit ñi yëgante kenn ku nekk yëg sa moroom yéene ko la nga yéene sa bopp ki waamal yërëm situation ki ñàkk ndax nag natt na boppam mooy gis naa ne kiyaakat ku amut la léeg-léeg léeg bu añee du reer mbaa bu reere du añ yow nga am xéewal ak bu si ak sa lépp di ñëw léegi nag mos nga mos nga eh, xiif mos mar ba xam ni mettee ndax tax na ëllëg boo gisee ko ñàkk nga yërëm ko mën ko dimbale kon saa boo xamee ne xani bi muy muy muy muy eh, Richard bi am na yéeg-yéeg boobu waa mbir la mbir la mu rafet rafet waaye li gën a rafet na mooy mu taxaw ci di jox fàqir yi muy ñu ko ñàkk ak di génne asakay mburum koor ci leexal fàqir yi ak miskin yi di dépense saalal ci ñoom su ko dee dana mujj na kon mbégteem it bisu it mbégteem feet gi mën a matale jaam ñëpp mën a matale ki ñàkk ndax ki ki am geesu na ko ba jox ko lu mu mën a bégee moo tax ñuy soxla génne ko lu jiitu lu jiitu julli gi euh, bu ko defee nag kon moo tax kon sun sun diin daf ñuy digal daf ñuy digal ki woomal di jox ki ñàkk di di ko yërëm ki am kàttan di dimbali ki néew doole ndax sun diin diine musaawaat la mooy di yamu la tolloo waaye diine maandu la it ba ko ñetteel mooy tatxiiru nafsil insaani as-saa'im mooy mën a laabal bakkan bu aji woor ji ndax aji woor ji ci weeru koor amaana mu tàbbal ci biir kooram lenn ci bakkaar wala di ci caaxaan lenn ci njuumte léeg-léeg mu wuuteeg lu yàlla digle ci jëf walla ay neen wala gàttan lu ci waru gar bu mu war def te def ko ni ki julli gum doy dal wala sa wax ju ñaaw ju wax saaga wala mu wax lu bon ci lépp lu yàqu koor gi mooy muurum koor dafay defar loola dañ ko farataal ngir mu mën a seetal aji yi ci lépp loo njumtan ci koor gi mu mën a defaraat loola su ci la gi door ma sëkk waaye ci lañ ko te sunu borom lu mat rek lay nangu sunu borom lu nangu lu dul lu te loolu mooy mott li koor gi la ca manqué woon muy muurum koor moo tax mu am solo ba ko ñeenteel mooy taskiyatu nafs mooy sel mooy mooy mooy mooy sellal bakkan ak zakat bi maanaaha tatxiirun aw ziyaada dafa ñaari ñaari ñaari prix yëpp mooy baatu baatu zakat dana firi ak laabal dana firi it ak dolli luy dolli ko zaka zaka ashay mooy mooy mooy mbir mi dolli ko na kon dana firi ak dolli waaye dana firi itam laabal taskiya taskiya sell lay tekk ak ak laabal teyit asaka wàññiwul alal muy sarax wàññiwut alal da ko yokk wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu la alxuraan wax wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa lépp lu ngeen dépassé yoon yàlla yàlla day leen koy remplacer te bakkan dafay aajewoo mbir mu koy laabal lu koy laabal di ko sellal ndax mooy li koy jegeel yàlla azza wa jalla te yàlla léeg-léeg amaana mu mere mu mere mu mere no ngir jëf ju ràññiku ko ju baaxut wala ay ñaawteef yu ñu jëf wala wala ay sabilaay taala waaye sa mu saraxe bu saraxee nag sarax sarax dafay fay merum yàlla subhanahu wa kon asakay murum koor kon des koy jàppe ne yoon la wu ñu mën a laabale bakkan bi sellal ko ci lépp lu luy ay tax ko it ci kaw darajo yu kawe te yéegi ga yàlla subhanahu kon lu solo la juróomeel bi ci xikma bi tax ñu yoonal asaka asaka mburum koor mooy nit ñi gën a mën a jegante bokk ci yi gën a rafet ci ramadan dajaloo gi famille bi dajaloo ci ci ëtt bi waxtu ndogo ñëpp bokk ndogandoo nga dafay jegal jege ñaale yi ci yenn waxtu yi waaye di dajale mboolem nit ñëpp nañ ci asakay mburum nga xam ñëpp dañ koy def daje gañ cee daje daje luy boole xol la nga ne jëmm ji génn mburum koor jox ko dëkkandoom loola dëkkandoom bi nekk faqir suba ruuxuk bokkoo day dundaat foofu dafay juddoo ci seen diggante ñoom ñaar seenu ràbboo seenu jàppante nga ne bëgg ndax koy jox dana la bëgg te ràmb ràbboo googu ak ànd ga jàppate googu moom la lislaam ci noonu jullit yi kon bokk li gën a rafet ci gën a jàpp ne mooy ndikki di ko joxe eh, ci ak dundam eh, li gën a jàpp ne ci dund nit ki mooy mooy yërmande ak ak ak ñeewantu ñeewantu ñeneen ñi ci des mooy ñi nga tane nga yërëm leen dee ñeewant ndax sifa la eh, ci ci luy tegtal nite dëgg dëgg dëgg sifatul insaanil xaqiqiya dafa teg ne ni kat nit dëgg la waaye nit ku ku wér la ki nga xam ne dafay dafay dafay gàddu responsabilité responsabilité nekk jawhara nekk nekk nekk nekk euh, nu ñu ko mën a waxee gànjar gànjar gu gu gu gu riche gu seer gu ne ci biiram te yéeg yéeg boobu nga xam ne mooy ne ci doomu aadama mooy mën a yërëm nit man ko ñeewante nekk insaan xaqiiqa yi loolu mbir la ma xam bu dee ci nit ki nit ki ci boppam dee na mooy rek ak dundam amatul njariñ su boobaa waaw mu yàgg ko faatu yéen yam képp juróom-benn bi ci xikma yi mooy ashuur bil faraxi war rida nit ki mën a yëg ci feet gi mbégte ak ngërëm ak seddu xol saa bu korite dikkee Eh, te jaam bi jaam bi aj nekkoon aji woor taqoo ki julleem jàng alxuraan di jëflante ak ñeneen jëflante bu rafet ci ñeewante akuk dal akuk tey zakatu fitre itam dikk mottali mottali la nga xam doon na ko jox jaam bi doon na ko jox ngir borom subhanahu wa taala loolu wasiila la maanaam yoon wu muy jaar bi mën a àgg ci saada muy réussite dund ak texeeg ëllëg ndax saada muy muy muy réussite euh, dëgg dëgg dëgg dëgg mooy mooy mooy mooy asaka ndax mooy li ndax ndax joxe ak sarax yàlla daf ci fay jaam bi day fay fayante jàmbi ci ngeen jaa rafeti nam doon joxe maanaam yàlla daal jox lu gën la nga joxe ci saada mooy ci réussite ak texe ak yaatu wërsëg ndax loolu digub borom bi la subhanahu wa kon la yàlla fay jaam bi moo gën kon la mu joxe ndax texe ma ni su ko fay texe rek tabi àjjana ëllëg kenn amul njëgam asaka ne ci maanaam dafay tegtale jëwhër muy muy muy muy gànjar waaye itam dafay dafay dafay dolli alal ji di ko barkeel di ko yokk di ko dolli ak texe di saafara ay yaram ndax sarax dafay saafara ay wéradi ndax yonent bi sallallahu alayhi na daawu mardaakum bi sadaqa na ngeen faj seeni malaat ci sarax na ngeen faj seen malaat ci sarax kon mooy sarax day sarax kon day wéral naka lay mën a nekk lu màgg màgg màgg te mooy te mooy nu saani ba du salaat fi fi fi islaam lislaam bu ñu nee tudd ñaari baat seede yi mooy mooy lee dugg ci sam boo xasee dugg nag la gën mooy jël su jël jàlle na mooy ñaari la ponk euh, kon taxawaay bi wàccuwaay bi mu kon mënut ñàkk ne kon nekk lu màgg loo xam ne ay jàngale ak mbir yu bare bare bari la ni muy toll nag mooy li ñu tudde saa saa mooy ñeenti mudd ñeent mu doon suñ ko natt ci li ñuy natt ñun mooy de kilo cinq cent mooy ñaari kilo ak genn wàll ñaari kilo ak liibar moom la ñuy génneel bopp bu nekk borom kër bu nekk moo koy génneel boppam génne waaleel ko ak njabootam koo war a dundal ko ne yaa ko war a génneel sa yaay ji dund sa ñaari waajur yi dund te mënuñu ko yaa leen koy génneel say soxna yaa leen koy génneel say doom ba ci sa mbindaan mi nga xam ne amut lu mu génnee ba tey man nga ko génneel jël nañ ci abi saidin xuduri radiallahu anhu wax ne kunna nuxriju fi ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yowma alfitri min taam wa qala abu said wa kaana taamana alshair walzabib wal axittu wa tamr ne ñun de daa nañ génn ci jamono yonent bi saa sallam muurum koor ab saa ci bisu korite gi ab 100 mooy ñeenti mudd yi ma waxoon léegi mooy 2 kilos 500 yi Abu Saïd nee na ba wax ne su li ñuy dundee ñun mooy ash-sha'ir wa zabib wal axit wa tamr eh, xeeti dugub ak tàndarma ak yu mel noonu moo tax réew mu nekk dañ koy génn ca la ëpp ca la ñuy dundee la bu dee suñ senegal mën nga wax mën nga wax ne kon ceeb ak dugub nag moo moo ëpp ci li ñuy dundee. Eh, kon kenn ku nekk kon da koy génneel ba fu mu génneel ko ak njabootam loolu mooy li dëppook li jumhuru ulama al muslimat wax lépp ci boroom xam-xam yi may soo ko génn may génn xaalis donte am na boroom xam-xam yu yu yu yu weddi na moom waree su ko génn ci lu dul dugub waaye dañuy delluwaat ca la taxoon yi di ko génne la tax ñu koy génn mooy lu jariñ lu jariñ ki nga koy jox lu mën daal di jariñoo te ki nga natt dugub jox ko ci bisu koor gi mbaa bi nga natt ceeb jox ko xam nu mu koy def mën naa balaa koo mën a jariñoo da koy jaay te bis kan la koy jaay fu ko jëndee ndax marché duñu ubbi ñëpp seen kër lañu la ñu nekk di feetu kon day mel ni ba tey mënu koo jariñoo tey tey tey te liñ bëggoon mooy nga nga bégal ko lu mu mën a jariñoo tey tey xaalis na boo ko joxee da koy daal mën a jariñoo léegi moom kon mees na ko ma ci xaalis boo xamee lu 2 kilo 500 di jar ci ceeb rek nang loolee mooy mooy mooy bopp bu nekk te génn ko xaalis jox ko seen borom kon sañees na ko lu jamono indi la lu jamono indi la kon ba sañees na ko jox ci xaalis nga xam ne ki nga ko jox da day day daan mën a bég mën ko daal di jariñoo léegi léegi ki génne wa asaka murum koor nag ñàkk koo génne ah, boroom xam-xam yi dëppoo nañ ci ne asakay mburum koor def na ko joxe lu jiitu mees na ko joxe lu jiitu bis bi ci benn fan mbaa ñaari fan kon buñ tey tey jii di juróom-ñetti fan yi mees na ko cee génne joxe ko suba di fukk ñaar fukki juróom-ñett laa bëgg tey ñaar fukki juróom-ñett mees na ko joxe suba ñaar fukki juróom-ñeent it mees na ko cee joxe nga xam ne jiitu na kon bisu koor gi benn fan wala ñaari fan ndax li euh, Abdullah ibn Umar rotal ci ne rasulullah sallallahu alayhi wasallam amara bi ixraaji zakati bi ixraaji zakati fati an tu adda xabla xuruji nas ila salati nee na sallallahu alayhi wasallam nee na dafa digle ñu génne asakay murum koor bala ñoo julli ji julli gi kon ngeen jaateel mooy ñaari fan jiitu koor koor yi mbaa benn fan ngeen jaay yaxam nag mooy bala ngaa julli ji it muy bis ba bala ngaa dem ci jullikaay ba na ko génne jox ko seen seen borom borom xam ne daganal nañu génn ko lu génn ko kon luy jiitu bisu nit bi kon noonu ci benn fan wala ñaari fan ndax faqiir bi man jariñoo balaa bis ba fekkee da nga koy génn lu jiitu bis moom mën ngaa joxe mën ngaa joxe dugub wala pepp ndax mën na ko jaay balaa booba kon waaye su fekkee da dem ba ci bis bu korige moom génn xaalis moo gën ndax mën a taxqiq xikma bi taxoon zakat fitre ñu yoonal ko su ko génnee kon lu jiitu julli gi jox na ja def na ko bindal ca loola ab yool muy yoolab ku joxe murum koor waaye suñ ko génnee nag gannaaw gannaaw julli ga suba ab sarax la nimrooti ci xadiisu abdullahi bin abbas na inna siyaamul muslimi yabqa muallaqan xataa yuxrija zakaat alfitre falaa yufa minha xataa yuxrijaha illa annaha takun bi ajri bi ajri sadaqa walaysa walaysat bi ajri zakat nee na ki ki mu war ba kor ba wari te génn muurum koor ak dañ koy aj dañ koy aj duñ ko nangoogul ba kër muy génn muurum koor ñu door ko aj door ko door ko nangu te boobaa nag fekkee bi fekk na julli gi jàll subaa yoolub sarax lañ ko ci bindal waaye duñ ko duñ ko ci bindal yorub yorub murum koor te yoolub murum koor moo ëpp doole kon dañuy wax ne kon koor gi kon bala bala ko sumboom nangu rek faw kon nga joxe asaka ji ba noppi kon moo tax nag kon lu lu ëpp sàggane la waaye lu mat a fonk la jumhurul fuqaha daje nañ <coughs> yooyu malikiya ci ne ki ko génnewut ki génnewul zakatul fitre ci toom wañ fixé ànd ak man na ko am na kàttan mën na ko génne ba noppi yeexe ko ku bàkkaaru la day am bàkkaar ca loola tey bor la boo xam ne du ko wàcc mukk du ko wàcc mukk ba faaw rek day day war ci kawam ba kere mu koy joxe su fekkee da koo fàtte nag fàtte moom sariya toppul kenn ci fàtte am na xadis boo joxoon ci fan yee mooy rufia rufia al qalamu ani naaimi wan naasi yàlla yëkkati na xalima bàkkaat ci koy fàtte ak kay nelaw ki nga xam julli julli daa jot fekk ko muy nelaw du am ca loola bàkkaar julli dafa jot da ko fàtte xelam demu ci ba duñ ko bindee bàkkaar bi kat mu ko fàtte kon ki fàtte asaka murum koor ci waxtu wañ ko war a génne sharaan da koy war mu génne ko saa ko fàttali ko rek saa ko fàttali ko ci la koy génne donte nag yàgg na waaye nag amu ca bàkkaar ndax fàtte gaa tax charan kafaar yi du ko ca war ndax la ko war a mooy sabab sa mooy fàtte ga te fàtte ko ngànt la ci àttey diine yépp euh, kon bis la boo xam ne kon buñ buñ bisu bisu bisu feet la boo xam ne yàlla da ko da ko jagleel da ko jagleel jullit ñi ngir ñu ngir ñu man cee ngir ngir ngir bégale leen ko ci topp guñ topp ndigal ci ndigal lum leen joxoon muy ndigalal koor ñu jëfe ko ba mu jaax mu may leen feet googu ngir mën ko feetoo ngir mu nekk mbégte ci jaamu yàlla googu nga xam ne génne nañ ca ñu xam ne kon du bisu du fo booy déglu rajo yi da ngay gis ne concert yi Eh, ak ak ak daanaka yóbbaan yóbbaan yëpp rek maanaam bisu koor lañ koy waajal dégg-dégg publicité yi monsieur sangam dana dëgg dana tëgg concert ci bisu korite gi dañu tëdd ak sabar sangam ci bisu korite gi kan day mel daal nit ñi dañ leen a yeewoon léegi tënk nañ leen léegi lu bon loolu mën nañ ko def loolu dafay tegtal ñàkk nangu koor gi koor gi la ngay tegtal la ngay yëg nangu nañ ko mooy su fekkee da koor gi dafa jeex yokkee la yóbbi la ak yokk jàmm yàlla gën a ragal yàlla gën gën a sell nga xam ne koor gi nangu nañ ko su fekkee dindi wat ci yow dara nag jàppal ne koor gi nanguñ ko kon noonu lañ noonu soo waree ba daal gis ne kat léegi yaa ngi gën a moytu bon na ko daa moytoo wala daawu ko moytu waaye léegi yaa ngi yaa ngi góorgóorlu ci baax say say jaam yàlla say jëf dolli ko sa ragal yàlla ko na jàppal kon koor ga nangu nañ ko fekkee nga ba war na soppi ci ci dara na nga meloon avant ngay woor dara ko ci jàppal ne koor gi nanguwut la d'accord bu nangoo dafa mu jeexital ndax koo tàggatu la su leen ay bàyyil lekk bàyyil naan tàggatoo ngir bàyyi nga ñeme xiif ngir kuy wut yàlla day nangoo ñeme xiif nangoo mar bu ñu la nee bàyyil eh, bu ca def nang bu ca def nang mooy da ngay tàggatu ngir mën a not sa bakkan ndax bakkan dafa nekk noonu jaam boo xam ne waxtu nekk la mu koy digal lépp lu ñaaw la te Sëñ Tuubaa na doo mën a am la nga bëgg lépp te notoo ko doo la nga bëgg doo ko mën a mukk te notoo bakkan bakkan lam gën a ragal mooy xiif wax ne bi mu bindee ko laaj ne ko yow bakkan yaay ak man maay kan ne ko yaay yow maay man ne sunu dugal ko sawara dir bu yàgg génnewaat ko laajaat bakkan yow yaay kan ak maay kan mu ton lam ton yaay yaay yow man may man mu dugalaat sawara ngir bu yàggee na laajal laaju ma tontu lam tontu woon mu xiifal ko wenn waxtu képp wenn waxtu laaj ko ne ko bakkan yaay kan ak maay kan mu ne ko maay sa jàmm bu torox bu lot bu doy di ngay sama borom bu mag bu kawe bu tedd ma xam ne kon bakkan kon xiif dong nga mooy li ko mën a yar moo tax mu farataal ci koor kon mbir la moo xam ne kon tàggat bakkan moo ko tax jóg kon boo fa jógee war ngaa nos sa bakkan ba ba mën koo nargan ci topp yàlla man koo margan ci nargan ci moytu lépp loo xam ne lu ñaaw lu noonu la kon foofu la taxaw tey indi leen seen ñaanu tey gi ñaanu bis bi allahumma inni as'aluka mujibaati rahmatik wa azaima maghfiratik wa salaamata min kulli aathim wal ghanimata min kulli birr wal fawzi bil jannati wal fawza min an naar rawahu abu abdullah suma borom dafa dafa ñaan googu may yow sunu maa ngi lay ñaan nga may ma lépp luy waral sa yërmande mboolem yi waral sa yërmande ak waaye dog yi sag njëggal ak mucc ci képp kuy bàkkaaru ak màng yépp yiw ak texe aljanna ak mucc ci sawara loolu nag ab julli bu nekk soxla na ko war na koy ñaan <coughs> bokk ci ñaan yonent bi sallallahu alayhi wasallam xaakim moo ko solo jël ko ci euh, xaakim moo ko solo xadiisu bis bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne alxaidu fii xibati yi kalkal bi yàqi usuma yaudu fii xëy ihi nee na maya nangu mi ngi mel ni xaj bu wàcc ba noppi wëlbati di lekkaat lam wàcc woon nangu mi ngi mel ni xaj bu wàcc ba noppi wëlbati ko di lekkaat lam wàcc xam nga loolu lu ñaaw la mu may na maya nangu noonu la mel abdullahi abdullahi ibn abbas moo ko solo muttafaqun alayhi ñu dégg leen ko insha allah suba ci waxtu yi ak jàmm di ñaan li gën ci noonu yàlla na ko sunu bon defal dëppale ko li nu gënal wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu